borom bi ma gaarale sama amaana te amaanatullaahi mooy ni mu jëflanteeg doomu adama te mooy togg ko jëf digal ko tere ko dexal ko tëggu ko suñu borom nee na amaana boobu yi asamaan yi laa ko njëkk a gaaral waaye ñu gàntu ne ma attanuñ ko ma gaaral ko suuf yi ñu gànt ne ma attanuñ ko ma gaaral ko doj yi doj yi gànt ne ma attanuñ ko ma gaaral ko doomu aadama ne ma indi attan ko kon innahu kaana zaluuman jahuula doomu aadama kon ku tooñ boppam la waaye ku réeree boromam la itam bi nga xasee xam ne kon yaa li doomu aadama li ñëpp gàntu moom moo nangu moo tax kon ak dundam moo moo gën a diis ci dund dund dund yëpp kon la nga ca déggee mooy kon loola jigéen ak góor ñoo ci am su ma waxaat ne képp ku jëf ci jëf yu baax yi min takarina unsa moo xam góor la moo xam jigéen eh, te fekk mu gëm yàlla waxu moomin da dañ tàbbi aljanna te te du leen xisaab lu néew wala mën a dara képp ku jëf lu baax it moo xam góor la moo xam jigéen te fekk mu gëm yàlla nañ ko jox dund ko dund ko jag dund ko tey fal nu yéen a xayran tayyiba wala yajzihim ajrahum bi ahsani ma kaanu ko jox dund ko fi jàdd ëllëg ñu fay ko lu gën rafet la mu doon jëf kon lépp nga xam ne kon dafaa teq dafaa tuusande góor jigéen min dakarin aw unsa kon nga xam ne góor jigéen kon ñoom képp ci kanam yàlla subhanahu wa taala ba muy limite yu baax ñu baax ñëpp ci góor jigéen innal muslimin wal muslimat wal muminin wal muminat wal xaanitina wal xaanitaat wa saadiqin wa saadiqaat ba ca fa aay ji jaxe nga xam day tudd góor tudd jigéen ñi gëm yàlla ci góor ak ci jigéen ñi ñu doon ay julli ci góor ak jigéen ak ñi yàlla ci góor ak jigéen ñi dëggal ci góor ak jigéen ñi muñ ci góor ak jigéen ñi ragal yàlla ci góor ak jigéen ñi sarxe ci góor ak jigéen ñi woor ci góor ak jigéen ñi sàmm seen bopp ci góor ak jigéen ak ñi tudd yàlla lu bari ci góor ak ñi tudd yàlla lu bari ci jigéen ba muy tudd pay genn la ko def lahum maghfiratun wa ajrun azim kon su ko defee jëf ju baax jigéen def su fekkee ñoo tolloo nuñ sellale ñooy bokk genn pay waaye safaan bayit nag bu góor mayee yàlla def lu mu te defit su ko jigéen defee teñ bokk nuñ ñaawale ba tey pay ga genn lay doon ba ko ñetteel jóor góor a jigéen ñooyam képp ci kanamu yoon kanamu yoon su ne yoon nag yoonu lislaam yi ci jublu tamay àttee lislaam lépp lu suñu wax ne ko def nangam nañ ko def nangam xàmmewuñ su ko góor defee ak su ko jigéen defee wasaarixu wasaarixatu faqta'u aydihuma azaniyatu wazani fajlidu kulli waahidin minhumaa mi'ata jalda nga gisee kon sàcc góor sàcc bu jigéen ko jël ak suma neen nañu dagg loxoom newaan njaalukat bu jigéen ak bu góor ku ci nekk nañ ko doon téeméeri yar su fekkente ne ku sagi wut la nga gise bi mu tudd sàcc góor la njëkk a tudd wasaarixu xam nañ ne jóg guddi daj ay magasin ak ubbi ay gétt góor doo nga koy def kon góor a gën a fis ci sàcc moo bi mu tudd sàcc góor la njëkk tudd waaye bi tudd njaaloo jigéen la njëkk a tudd njaale ñaari ko séq waaye la ëpp suy am day mel ni jigéen ji la ca ëpp ci moom lay bàyyi ko la ca ëpp ci moom lay bàyyi ko moo tax mu njëkk tudd jigéen ci muy tudd njaalo ki njaalo tey góor wala muy jigéen su fekkente ne ku sagiwul mooy ku mu sa denc soxna téeméer yar ci kanam mbooloo su fekkente ne ku ma sa am borom kër la maa ma am soxna boobaa nag raj mu lañ ca wax mooy ray raju raju raj mu kon góor jigéen ñoo yam képp ci kanamu yoon nga xam ne eh, liñ gëm ñun ca jàpp ko mooy eh, lu fu waay yëngu rek ci bis bi noonu nga ko defal ndax eh, li yàlla dogal mooy njaboot gu tedd gi nga xam ne moom la baaxee soxna Faatimatu di sëriñ Moodu ki rakkam ak meññat yu tedd yi ñu bàyyi seen ginnaaw ba mën a taxawal lii buñ taxawutoon rek euh, njabootuk sëriñ Seex Pend bu ñoom la war ñu taxawee léppi soxna Faati ba tax na ñu ngi sant mboolem njaboot gi ci noppal gi nga xam ne noppal nan ñu ko euh, doomi sëriñ Tuubaa nag buñ koy fàttaliku moom euh, képp ku di jullit rek rawatina nga bëgg lu baax boo ko mënee war nga caa teew ak fu ko mën a fàttalikoo doomi sëriñ tubaa fu ñu koy fàttalikoo rek teew ca warteef la ci képp koo xam ne rek bëgg nga lu baax ndax la fay nàmpe la fay roote ci njariñ euh, mën nga koo jariñoo ci sa dund man koo jariñoo ëllëg ñuy sant bu baax sunu doom ji nga xam ne moo doon def waxtaan wi di sëriñ Maam xam sa diine lu mat a wax rekk wax na ko yàlla na ko jigéen ñi dégg bu baax a baax nag waaye ki ñuy fàttaliku tey di soxna Faatimatu leeral nañu ci bu baax a baax ak dundam ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne amoon na ko muy njàng mu am solo yàlla na yàlla defal nu ak dégg ak topp nun taalibe yi nag yépp nag muy daayira yi nga xam ne ñoo nekk Touba Gelongal Ndakaaru Pëleen wala Ñaning wala Mbooro mbaa fu mën a doon rekk daayira yooyu yëpp ñi ngi àndandoo yëkkati seen kàddu jaajëfal sëriñ bi ak mbooloo mi ko yàlla booleel mbooloo mi nag du dara lu dul àndandoo benn le suñ bopp bañ a beenu déglu ndigal dégg ko jëfe ko loolu mooy sunu waru gar nun ñëpp kon loola itam noo ngi cey soññ sunu bopp ginnaaw suñum nuyoo taalibe yi rek lañuy soññ amulu nag lenn lu ñuy wax keneen ndax yéen da leen war di yéen nga ca def ngeen ko defal nu ko muy sa ci nun goo xamante ne buñ ko xoolee tey ci organisation bi njaboot gi nga xaye nii mooy sëti soxna si wëlbatikuwaat takku laxasaayu topp ci ginnaaw sëñ abo ñu def li ñu def taalibe yi nag war nañoo jaajuwaat te kenn ku ne war naa taxawaat nu soññewaat ba nun ñii sunu njaboot nekk ci biir liggéey bi jàpp ndalal leen ko ngeen di leen sant ñuy def ngeen di leen tere ñuy bàyyi loole mooy suñu warugar ndax kat ku ci nekk sa kër ga nga nekk la fay dox mbaa nañ koy doxee mbaa nañ cay waxee la koy doxal taalibe yi rek kon taalibe yi nañu amaat pas-pas ak pas-séef walbatikuwaat fabaat seen bopp yëkkati seeni kilifa ndax kilifa ci boppam nag soxlaalul ka yilif lenn lu dul kamu mu yilif na ko sagoo na ko sagal sagal ngénnu nag safoo ngénnu waaye nañ leen sagal te safoo leen te faale leen te yëkkati leen te fab suñ bopp delloo leen kon noo ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg def nu yàgg koo fekke suñ borom bàyyi leen fi bàyyi nu fi te nag nu ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo ko jiite seenub liggéey mat na rafet na yal na yàlla mottali leen